waaw politique nag moom damaa yaakaar ne damaa yaakaar ne bi may kiiwee yàgg na bi ma ci duggee yàgg na ndax dama nekkoon ak suma juru góor mu doon militant parti socialiste ñuy réunion ci sama kanam bu ñu paree ñu jox ma ay kayit comité may yóbbu wala ñu jox ma ay kart may yóbbu di ma jox tegtal may dem et cetera ñuy def loolu ba tax na bi ñu ci yeggee ma xam ne donc man bu ñu wax politique ba ma ci duggee yàgg na ba may doon xale waaw ba ma ci duggee yàgg na léegi nag euh, ah, wax dëgg yàlla mais politique dëgg dëgg dëgg en tant qu'acteur maa ngi ko tàmbale ak euh, vraiment euh, jëf jël jëf jël bi nga xam ne camarade Tall la maire de Thiès moom moom moo ko def politique dëgg fa laa ko tàmbalee parce que fa la ñu commencé laa am responsabilité nationale doon chargé de de la formation et de l' encadrement bu jëf jël durant tout le temps may nekk jëf jël fa laa jógee également dem euh, ñu sanc alliance démocratique Pencoo waaw ba bi may ñëw di tàllal loxo président Macky Sall ci 2012 début 2012. di ànd ak moom euh, vraiment mu jaral ma lépp nag ma ciy def suma lépp nag pour que kàddu président Macky Sall di jëpp fépp pour que liggéeyu Macky Sall bu taar gi mu am ñu koy fësal ci fépp pour que gunge bi ñu koy gunge ak nu mu ko bëggee ci base bi ma nekk ak moom ci loolu. boo loolu moo tax ma ne vraiment bu ma ko tàmbalee moom engagement bi euh, xam naa euh, ci jëf jël la tàmbalee. Mm. loolu moo ma indi ci politique. responsable nga ci APR. Mhm. nekk ci dëkk boo xam ne Talla Sylla moo ko jiite te yéen a bokkoon parti ni nga ko mhm. euh, mooy seen diggante nekk ak waaw ni ma gisee mu yore dëkk bi moom damay sant yàlla sant yàlla ba mu doonee moom ndax xam nga nit mënta euh, jàmbaar te lu mu bëggul si la mosul am beneen ambition lu dul jiite Thiès coow li fi nekkoon yépp li muy reyante yépp Talla bëggul président ONU bëggul président Union africaine bëggul leneen taal meeru cees la bëgg. yàlla def na ko tey parce que lu waay di xëcc lu ne bu daggul dikk loolu dikk na tey te mu ngi doxal li nga xamante ni benn maire mosu ko doxale Thiès ci jamono ji nu mu méttee nii nit ki war a dem di wuti ay partenaires war a dem di lëkkaloo ji ak ay yeneen ville di def loolu taala présence bu am Thiès nii benn maire mosu ko fi am ci maire yu ba mujj yi alors tey jii muy woote maa ngi leer liir information keroog ñu ne bi mu toogeeg léegi dem na fi ci ay plus de euh, ci lu ëpp Euh, ñetti junniy manifestation waaw 2014 la toog 2014 2016 matagul sax ñaari at yu yu tëju ñu ne ci ren jii rek ren jii 2016 bii rek defagum na fi lu ëpp teewagum na fi ci euh, ñetti téeméeri ndaje te taala initié fi lu ñuy tuddee euh, audience publique ku xam nga audience publique xam nga audience populaire mais attends kooku ku am looy nëbb doo ko def ku wóoluwul ne yow askan wi moo la fi toogal doo ko def. man ak moom nag faruñu politiquement man président Macky Sall laay jàppale mais wóor na ma ni Talla président Macky Sall ma ni Talla président Macky Sall mu ngi koy jàppale ndaxte li muy def loolu la président Macky Sall bëgg à défaut comme amuñu ñun maire APR bu fi toog Talla la moom mooy suñu maire ñun par défaut parce que li muy def ñun bu ñu fi toogoon loolu lu ko raw la ñuy def parce que du ñu def leneen lu mooy loolu ah waaye nag il faut nit ñi jàppale ko. ñu mel ne ñun dañu koy jàppale man maa ngi naqarlu toog ba léegi demaguma ci benn ndajeem nag audience populaire yooyu te dama koy bëgg mais duñ ma ko ah donc loolu lu may su ma yéene la euh, jàppale ko parce que xam naa ko taala ko bëgg Thiès xaw ma sénégalais moom boo ko waxee mu ne ko bëgg réew mi laa yëpp man kii mais Thiès taala am na ñaar yoo xam du nangu ku ko gën a bëgg muy Thiès ak sëñ Bamba ñaar yooyu non ku mu neex bëgg ak degré ba mu la neexee mais du nangu kenn gën koo bëgg ñaar yooyu xam nga ne loolu moom beneen affaire la taal dañ ko daf ko jar a jàppale la parce que mu ngi ci liggéey bi te mu ngi ci li neex askan wi waaw ñu ngi génn ci référendum bi yéen bokkoon ngeen ci diggante seen digganteeg réew mi dox ngeen ci jéego yu am solo mhm. euh, seen biir aussi doon nañ fi wax mbirum unité mhm. ndax boobu vraiment euh, am na solo ci affaire boobu euh, ci référendum bi ci référendum na ci solo trop mais amul woon maanaam mu waroon a am lu amoon solo la ci mais malheureusement amul woon unité boobu parce que man maa doon def coordonnateur Benno Bokk Yaakaar bokk APR mais ñi ma gënoon a indil ay jafe-jafe dama ko yëgul nag ndax yàllaa ñu gunge mais ñi doon jéem a wut ay jafe-jafe ñu ci ëpp APR la ñu bokkoon am na yu doy yoo xam ne rafetul sax nettali ba presse bi génne ko yu doon am ci suñu biir yëpp pour gàllankoor njiit gi ma nekkoon mais yàlla nag dafay dogal ne euh, moom mooy gunge ay jaamam. xam nga suñu borom mooy namm la mu bëgg ci jaamam mu organiser ko ba yàqkat mënu ci dara ñun suñu yoon noonu lañu te noonu la tracé wate noonu lañ ko gëmee ba tax na ba tax na bi ñu ñëwee euh, bay def noonu loolu lañ ca nekk yëpp je euh, ma ne ci sama ci ci la ma jàpp ah loolu day amut solo. jarul ñu koy jàpp ndaxte matadik doomu aadama la rek waaye doo am njiit ku mel ne eh, li ñuy def ñun tey jii nekk ci nañ ci defe gëm ko nañ ko gëmee nga ñuy gàllankoor suñu borom du ko nangu moo tax résultat yi ñu am noonu wane na ko yàlla dogal na ne Thiès Nord man maay responsable bi gagné sama sant gënuma faa jàmbaare de ëpp ma fa tur ëpp ma fa alal ëpp ma fa jot waaye yàlla dogal na ne la ñu liggéey 2014 juillet 2014 ba ci référendum bi loolu lañ suñu borom faye keroog ba ñu paree résultat yi ba ñuy jubilé di bravo ba ma génnee ci centre de vote ba mais bravo ba man lañ ko jubal te ña doon diingat ca gannaaw ga ñu ngi woon ci bravo ba di ma gunge ba sama kër man sax maa bañ dama génn ñu ne ma da ngay dox parce que ma xam ne mbi mbudd mi leneen mun na ci rax ma dugg sama oto ñuy bravo oto bi ba may yegg sama buntu kër xam nga ne loolu mujj gi ma ne su ma duggee ci kër gi damay am jafe-jafe ma ne leen léegi mun ngeen tasaaroo ñibbi ba dimanche danañ ko feete léegi man maa ngi dem dafa dañ maa woolu ma taalaat sama oto continuer loolu moom moo tas jataay bi teewul ba mu wàññeekoo ay 23 heures maa ngi fekk nit ay toog fa di ma xaar juste pour ne ma lii mënutoon a ñàkk dangaa waroon a gañe ndax danga ko liggéey nangam nangam nangam suñu borom moom mooy def loolu suñu borom mooy def loolu mais gàllankoor yi bane na woon bu unité amoon woon gàllankoor yooyu am waaye nag ñun bon li may wax rek suñu borom mooy tracé waaye nañu topp rek waaw président nag loolu moom dama yaakaar ne boroom kër gi waxtaan na neex boroom kër borom kër gi muy président Macky sàll moom moo ko mën a defar ni mu koy defaree mooy mu xool ñi nga xam ne jar nañoo taxaw ndax liggéey euh, moom xam na ñeneen ñi xam nañu ñii liggéey xam nañ leen ñii mbaw ci mbedd mi xam nañ leen ñii defan leen xam nañu euh, euh, man sama bopp laa xam man de nawuma suma liggéey nawuma lu may def waaye xam naa ne maa ngi liggéey ci moyens yi ma xam naa ne maa ngi liggéey ci xam-xam bi ma yàlla may xam naa ne ngi liggéey soo demee ci Lansepierre word euh, Lansepierre point wordpress point com suma blog di nga gis ne man liggéey naa intellectuellement am na lu ma jël ci débat politique bi maa ngi ciy bind lépp lu ma suma lu ma sama xaar may maa ngi koy bind boo demee euh, YouTube rek nga bind sama tur di nga gis ndax man maa ngi liggéey wala liggéeyuma waaw mais yaa am na ci ay ñoo xam ne ñu ngi fi taxaw ci mbedd mi di fëgg dënn boo demee boo bindee seen tur Google Google doo waaw man foo xam nga mbir yi léegi natt li natt ni doomu aadama di yëngatoo dafa yomb parce que jumtuwaayu xarala yi ñoo fi ne Google rek boo demee nga bind Lamine Aïssa rek da ngay doyal sëñ bi sant naa ñaan naa lool rek nga bind Lamine Aïssa Fall Google bu tàmm sax Lamine Aïssa bi rek moom moo lay yeggaleel Fall yenn saa yi mu yokk ci njaay yox la ñox la nga défilé loo bëgg di nga ko fa gis loolu kay doy na léegi président la bi moom mooy xool nag ñiy liggéey ak ñu jigéen ñi jara doole la ak ñu dugal ñëw na loolu mooy wax ji. Idrissa am yëpp am waaw Idrissa Seck xam nga moom man ku ma respecté la parce que en réalité euh, Idrissa Seck bu faroon ci ñun bu faroon ci ñun non man kenn ko diingat kon c'est pas parce que farul ak ñun rek dañu koy diingat duma ma nit ki mais génn yi muy faral di génn rek moo may doyee moom ma laay doyee dal ndaxte du ma lekk ci cere ji dama ciy xëpp suuf loolu baaxul. Euh, moom dafa nattoon boppam ni moom mooy doon ñeenteelu président Sénégal yàlla dogalu ko xam nga programme nit ki ak programme suñu borom bokkul moom loolu moo nekkoon programme mais suñu borom d'accordu ci waaw moom dafa war a nangu ne suñu borom mooy fal wala boog mu gëm yàlla mu ban koo gëm a fi nekk bu nangoo ne suñu borom fal nañu bàyyi Macky Sall mu liggéey tranquillement parce que mu ngi liggéey nag bu ñu waxante dëgg nañ dem ci kër diine yi laaj leen ndax Macky Sall a ngi liggéey nañ dem ci palaasu liggéeykat yi même jàngalekat yi wax problème yi fi am yépp mais boo demee au fond au fond boo seetloo tey jii xar nañu ñaar ñii ne dañuy tàmbali ñii ne dañuy continuer ñii ne continuer parce que vraiment bët bu rusul toj dëgg-dëgg effort bi président Macky Sall ak gouvernement am def mënatuñoo nangoo doon demal ci boo demee ci santé fépp santé seen euh, euh, seen objectif yi ñu atteindre mais amul fenn fenn cent pour cent seen objectif dañ ko atteindre. mais nag comme euh, syndicat yi également dañ ci am ñoo xamante ni dañu ñu ngi ci politique bi wala ñu am lien ak yenn waay politique yi euh, Sénégal mënul bañ a compli il faut mu jafe loolu moo fi nekk rek mais vraiment ñun yaakaar nañ ne euh, Idrissa Seck vraiment dafa war a toog xaar wàllam toog xaar wàllam mooy mu xool dañ koo dénk ab cër mu doxal cër wa waaye ñu ngi la dénk cër doxaloo ko ba nit ñi nangu ko ceew dénk ko sa morom sa morom boobu di ko doxal mais ay la yéwén da ngaa war a toog nga xoolaat sa bopp seet lañ la des ci lañ la dénk balaa ñu koy nangu nga jéem caa góorgóorlu was lu ca àq sax conseil département moom moom lañ ko jox mais tey ji gis nga ne moom lañ ko daan lañ ko daan diingate ba léegi moom ci la ne soppikuwul alors munul nag nekk ni fii lijjantiwul lañ ko jox muy yóotu la keneen di yor pour mu lijjanti ko man problème bi noonu la yombe te noonu lañ ko war a comprendre moo xam ne nag bon nit ku respectable la nag bu ñuy waxante dëgg rek il fait partie des dignes fils de ce pays là mais nag bu génnee bu wàccee yoon wax dëgg yàlla war nañ taxaw ne ko ah sëñ bi kat wàcc nga yoon bu ñu sañoon kat nga doxalee nii doxalee nii te loolu foofu la ñu toll ak moom. sama kàddu bu mujj moom mooy sant yàlla euh, sant sama wayjur euh, di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi loor te may ko wér mu fekkee lépp euh, sama wayjur wu jigéen moo fi des moom soxna ay safaal may sant Cheikh Mbacke Saalum mi nga xam ne ni ci yoonu sëñ Touba moom la ma suñ borom booleel. Euh, di sant euh, kilifay diine yi fi nekk yépp di sant suma ñooñ euh, waaye politique yi di sant suma proche collaborateurs yi di sant yépp parce que gëm nañu ne li ñuy yóotu soreetul parce que mënul demee neneen lu waaye di yootu lu ne bu daggul dikk parce que nag ñu ngi koy xëcc ak doole ba pare di ko teg ci yoon te loolu moo am solo di leen gërëm yéen itam di ñaan yàlla barkeel seen liggéey ci barke bu am ak Cheikh Ibrahima. merci